salaamaaleykum euh, mbokki internet yi nga xam ne saa su ne ñu ngi seetaan seen seen YouTube bi du xombal point net nekk premier digital plateforme bi nga xam ne numérique ci bi naan xombal euh, ci seen émission bu mag bi di ëtt e bi li si ëtt e bi tey ñu recevoir nga xam ne mooy Malick Camara ni ma la ko waxee sànq ci annonce bi nekk un jeune très engagé waaye balaa boobu dañ koy bàyyi mu présenté wu Malick na nga def ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw maa ngi lay fay El Malik bah, man le Malik Camara euh, le secrétaire général du comité électoral de la coalition Aar Aar Xombol membre fondateur parti Awalé donne membre aussi si la délégation de la massification des jeunes du parti Awalé. Malik, euh, après présentation bi ndax Malik, euh, wonno meuna xam kan moy Malik Camara ndax jàng na fu mu ba fan la egg. été dit fan la ak ban métier la doon suivre wa man euh, comme sama morom yëpp ma ngi jangé fi nga xamné fa la commencé moy école ismaël Diop xombol ñu gën ko xam ci école 1 ma def CI def CP paré foofu ñibbi si école 4 parce que dañu tuxu ci ginnaw ray ñëw école Ibrahima Ndiaye ñu nan ko école 4 fa la jangé ba am fa sama entrant sixième songu li nga xamné moy lycée bi lycée Koumba Diack Gueye CM je peux dire fa jangé ba ba ba am fa sama BFEM bi paré def ben année de deux ans à Thiès collège moderne ladior Dior avant de revenir à xombol am sama bac fi nga xamné moy collège moderne cours privé Ousmane Bay am sama bac dem université don fa suivre philosophie dem ba ba ba licence 3 après si la virée dem defi marketing communication waaw. def marketing communication ku xam Malick Camara xam xam ko ci mouvement nawetaan mu nekk koo xam ne nii gars yi bu ñu wax sax dinaan ak détermination engagement ñu ko gën a xamee ci côté boobu mouvement nawetaan la fi dugal. waaw <laughs> man du ma ne mouvement nawetaan sax yenn engagement yi may am si mouvement associatif yi laay laay wax. parce que du si nawetaan rek la ma nit ñi xam fii ma dëkk nii créé woon naa fi am na mouvement yu bari fii sama loxo ngi sax li si mel ni muy mouvement lu mel ni association des jeunes pour l'émergence de Guinaw maa ko bind bind li si war am lépp maa créé ban am suñu récépissé sama engagement si mouvement yi aussi man mën naa jàpp ne loo xam ne nii la dama ko dond sama deret la ne dans la mesure où mes parents ku leen xam. xamoon seen engagement ci terrain politique bi ici à Khombole ma judd ci loolu yaru ci antagonisme d'idée boobu noonu donc ak ay principe nag quoi waaw du doon xëccoo xëccoo rek mais xëccoo ak i principe man si loolu laa judd ci laa màggi moo tax parfois soo may gis samay engagement ci mouvement associatif yi dafay am nu muy xaw a mel ba engagé engagé boobu ma engagé wu moom la ma ñu bari di seedeel ba tey si mouvement nawetaan duñ fa génn ndaxte dañuy xam ne fi nga xam ne mooy ASC Guinaw Rail nga am fa poste boo xam ne jëloon nga ko euh, nawetaan yi daaw yi avant mu commencé mu amoon xiiroo ngaaroo ñu ne naar Camara dafa bàyyi woon dafa démissionné complètement ñu gisaat ko si si ni nga mooy langue terrain bi lu taxoon. non mosuma démissionné mosuma démissionné parce que ay obligation professionnelle moo taxoon ma xaw a sori tuuti mais amul benn yoon boo xam ne nii mas am na wala ñu def dara si koñ bi te sama. coono demu si sama doole demu si walla sama dërëm donc mosuma démissionné xam nga parfois nag day baax te loolu la ñëpp di ñaan soo jàngee ba pare am casé wu am sa liggéey casé wu waaw lu mel noonu nag moo taxoon engagement bi bi nit ñi daan gis daan ma gis chaque jour mu xaw a wàññeeku. waaw mais si taarix nii rek la gis-gis bi la mais li nëbbu liggéey malgré fee ñu woon mais ñu ngi doon def liggéey bu ci ayib si li nga xam ne mooy mooy mooy mooy ASC ginnaaw raay bi nga xam ne fi lañ dëkk. Malick bu ñu jógee foofu dañuy ñëw si wàllu politique mun ñu waxtaan ci jigéen ñi fii wax ci loolu Malick lan moo la dugal si politique ak lan nga gis dëkk dëgg ba nga sant ne yow mi woon ngaa sóobu si politique. waaw <laughs> xanaa li ma la ko waxee rek xam naa sànq xaw naa see laal tuuti mooy mooy mooy. Politiquement, mom man dama japp servir la quoi servir ce peuple servir sa nation donc ma juddou comme ni ma ko fekk don ay pa am ay parents yo ni ci lolu nonu am engagement ma gis ne li ñuy def ni affaire bu noble la pratiquement lolu xamna li ma ba nga xam am amour politique en quelque sorte lolu euh, ban parti nga jëk a miti mitiser mi mi ak ñom pour dem campagne wala and ak ñom pour def élection ndax man ma ban parti nga njëkkee. waaw comme comme comme comme tout jeune wala jeune yu bari alternance première alternance bi mu amee en 2000 ay xale lan woon xamuñu woon ci politique lu bari waaw ñu doon ay nit ñoo xam ne ni nag nous sommes épris de justice dañuy xeex li nga xam ne mooy ay jaay doole jaay doole nit néewal ko doole bi nga xam ne ñu ngi def la classe de seconde si je ne me trompe pas bokk nañ si jeunes yi nga xam wala sénégalais yi nga le président Macky Sall bii fi nekk bi muy def tournée nationale am am na lu mu ak ñun ñu nekk un foyer comme Fosco ni ñu koy organiser mu jaar fa am ay cadeaux yi mu ñu jox expliquer ñu ses ambitions pour le Sénégal ak li nga xam ne moo tax ñu ci gouvernement bi engagement boobu noonu ak jaay doole boobu ñu ko doon jaay doole moo taxoon bokk na si nit ñi nga xam ne ñun moom lañ njëkk a topp si politique quoi waaw moom nga njëkk a topp si politique ma gisoon ba tey loolu moo taxoon nga am engagement boo xam ne ni saa bu ñu waxee Macky Sall nga défendre ko tëb di dal ba université ba xombol euh, loolu moo tax waaw amoon yaakaar si moom rek amoon yaakaar si moom ak ak ak ni muy doxalee par rapport ak gis-gisam parce que man malgré sama engagement ak sama fugu, man dama gëm ni politique jarul coow jarul xuloo te li ñu gënoon a neex ci moom bokk na ci dal gi nga xam ne moom daf ko dal ñu ànd ak moom nag ànd bu rafet ànd gor sans pour autant ñu xaar dara ci moom fal ko 2012 2019 ñëw mu tegalaat ñu programme boo xam ne nii ñun jàpp nañ ne moo gënoon ci programme yi muy muy liggéeyal ëllëg ñu jàppale ko ci aussi mu waton ne mom tamit waxone ci kanamu Sénégal yëpp ne mom en 2024 fay fekk mu jeexal wa comme que politique nak mom c'est pour une éternité entre guillemets non la ko mën waxé ñu né nak comme que mom walum boy na il faut que ñun tamit en tant que républicain en tant que patriote dinañ tan ci ñi nga xamné moy ñi am ay profil pour 2024 ñu and ak ñom gungelen liggéeyal li nga xam ne mooy Sénégal bi nu bëgg. liggéeyal ma gis rupture am sa diggante ak président Macky Sall lan moo waral rupture boobu tamit. non man mënuma wax ne rupture la parce que ñun nation lañ yor te développement procesus la processus la waaw ñuy saluer aussi vision bi nga xam ne. ñaari alternance yi ñi nga xam ne ñoo jiite woon ñaari alternance yi am nañ ko mooy comprendre bi comprendre li nga xam ne mooy mooy les infrastructures de base que mooy mooy li nga xam ne mooy mooy fondement développement waaw ñu comprendre loolu am luñ ci liggéey waaw biñ ko liggéey nag ba ñu yegg si fii man je pense que ni dafa am loo xam ne ni dañ ko fàtte par rapport ak chômage des jeunes yi nga xam ne c'est endémique par rapport ak li nga xam ne mooy sunu économie bi ni mu hybride par rapport ak

ku nekk da ngay def li nga mën mais chaque président ak jamono ba mu koy soxla ak profil ba muy chaque président profil bi mu yor ak jamono ba mu koy soxla nous avons eu deux présidents yoo xam ne nii ils ont eu à bâtir quelque chose pour le pays ou non donc actuellement comme ni ko docteur di waxee rek nous avons un pays à construire donc comme que toll nañ foofu rek ñu ne nan nan nan nan xool ki nga xam ne moo war a adapté wu

réalisation d'opinion ko ci élection 2019 mais man dama ko doon nit koo xam ne nii dama ko yàgg suivre mu doon nit koo xam ne nii nit ku dal la nit ku am vécu la nit koo xam ne nii lépp lum la wax rek ak lépp doxinanam méngoo naag li nga xam ne bëgg-bëggu sénégalais yu bare bare bare bare yaru dal na am na diine te li muy wax teg na ko ci xam-xam te Sénégal bi nga xam ne moom lañ bëgg actuellement si loolu lañ ko soxla. bëgg na di Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi wax ak seen bëgg-bëgg ak seen ñëpp tegu na si diine bëgg ñëpp lu tax choisir woon ñoom tamit. waaw mooy mooy euh, lool lool moom loo xam ne nii la. c'est du la du doon loo xam ne ni xaw ma nu ma la ko mën a waxee mooy amaana yàlla si moom la ma xiir waaw man daal si candidat yi yi nga xam ne dañuy dangañ askan bi yëpp am 2024 donc je pense que ni si moom laa gën a gis sama bopp ak Sénégal bi nga xam ne man moom laa bëgg ay qualité am ah waaw koo xam ne nii ku ku ku am jaar-jaar la nekkoon na chargé nekkoon na cadre réew mi jiite cadre nekk directeur campagne bi Idrissa Seck di 2019 bi coalition bi nekkoon na SONES jaar na club de investisseurs te jaar yam fa jaar yëpp jaar bu rafet la bu am solo la aussi am na vécu à l'extérieur am na ay prix yu bare bari yoo xam ne nii recevoir na ko à l'endroit

benn coalition boo xam ni ay nitu valeur ñoo ko composé ku si mel ne Thierno Alassane Sall mi nga xam ne moo jiite coalition bi doon na nit ku fey nit ku dëggu nit ku bëgg réew mi ndax ay jaar-jaaram dootuñu ko wax Sénégal ak li nga xam ne mooy ko jëlee si gouvernement bi nga xam ne mooy di Macky Sall bi nekkoon ku mel ne Thierno Bocoum aussi gis nañ taxawaayam si parrainage bi dem ci kaso

ku si mel ne Théodore Monteil législature bi mu nekk bokk na si meilleur député yi nga xam ni à l'unanimité muy opposition du pouvoir société civile ñëpp d'accord nañ ne bokk nañ ci ñi nga xam ne mooy ñi ñi gën a baax si législature bi bi nga xam ne moom lañ génn Cheikh Omar Sy Paré Marème Soda mi nga xam ne moo doonoon la cadette de l'Assemblée nationale aussi ñun ñëpp en mars bokkoon ci ñi nga xam ne dañ doon partager ay vidéo di defee intervention ba pare donc ñooñu noonu suñ àndee taxaw bokk benn coalition pour tuddee ar Sénégal wax dëgg yàlla Sénégal yi war nañ leen a bàyyi xel xam ne kat ñii lii ñu bëgg mooy une assemblée de rupture parce que assemblée kat yow natable wu wala sénégalais natable wu ñu ne assemblée bi nga xam ne Sénégal moom la bëgg du bii weesu assemblée boo xam ne ni dañuy xeex dañuy xuloo député yi duñ ñëw duñ proposer ay ay loi sudul politique wala télé yi wër leen duñ teew ci assemblée moo tax nag ñi booloo nii taxaw tem ne dañoo bëgg benn assemblée boo xam ne dafay méngóog li nga xam ne moom la Sénégal di ko ak lu Sénégal ay bëgg ma gis seen li nga xam ne mooy nataal bi nga xam ne def ngeen ko mu génn guy gu mooy dafa bokk ci nga xam ne mooy mooy emblème mu waaw bokk ci emblème mu Sénégal je gis xob yooyu wadd mooy bi nga xam ne dañ koy attaqué guy gi ba wadd xam nga guy su fekkee reen dafa am feebar. d'habitude da gis fa bi wat ar sénégal nak moy coalition bi nga xamni da fay ñëwaat indi ay problème taxaw tém pour fa jangoro jooju guy gi amé ñu pencum ndaw réew mi ba nga xamni ne sénég gi dina mëna meñ ay branche am tàllalu xob yi ba sénégalais yépp mëna tok ci si ker googu di ker jariñu si euh, li nga xam ne mooy livre bi nga xam ne bind tënk ngeen ko tënk ngeen ko ci euh, ne bu demee assemblée moom ngeen fa fas def muy contrat de législative boobu ndax mën ngeen kaa fare frontière wax ñu point yi nga xam ne moom ngeen fi def waaw pro euh, programme de législature bi xam na temps bi du ñu ko may mais mais bari parce que livre boobu contrat boobu noonu dañ ko def jëblal ko pour wan leen ne aar bu demee ba assemblée am fa majorité nii la bëgg assemblée doxee li nga xam ne am na ci solo am na ñu def ko si quatorze parti bokk na si ay redevabilité parlementaire bokk na si li nga xam ne mooy doomu daar bokk na si li nga xam ne mooy mooy citoyenneté bokk na si li nga xam ne mooy la gestion foncière bokk na si li nga xam ne mooy patriotisme économique bi nit ñi taxaw war a taxaw lu bëree bëri ma koy wax ñett yi nga xam ne man en tant que jeune daf daf ma gën a touché mooy li nga xam ne mooy citoyenneté bi patriotisme économique bi parce que damay yëngu ci entrepreneuriat ak bi nga xam ne mooy doomu daara parce que patriotisme économique bi comme ñoom ni ñu koy waxee rek dañoo gis ne société sénégalaise yi wala entreprise sénégalaise il sa sent elle se sent li nga xam ne mooy étrangère au sein de leur pays waaw dàqulu kenn nag mais la préférence de soi la ñuy prôné sama boppam la gënal bi bañ naa la donc war nañ si am taxawaay am na affaire yu bari yoo xam ne nii c' est plus technique suñ demee ba nga xam ne am nañ majorité dinañ ko gën a détaillé bi si des mooy bi nga xam ne mooy mooy doomu daara ñu gis ne kat sénégal kat ñi nga xam dañuy bindee ndijoor jëm càmmoñ pratiquement dañ leen a soofantal te kat je pense que ni intellectuel bi ki jàng français donc bu jàng bu fi am ay diplôme diplôme français donc donc kon ñi nga xam ne ay doomu daara la jàng si daara yi wax dëgg yàlla war nañ leen a gën a bàyyi xel bi si des mooy la citoyenneté te citoyenneté bi si ëpp jeunes yi lay engagé waaw citoyenneté nag wax dëgg yàlla dafa doon loo xam ne nii dafa am solo nit ñoo xam ne nii jeunes yoo xam ne nii dañuy respecté li nga xam ne mooy institution yi nga xam ne mooy ñoo am si réew mi wax dëgg yàlla mooy respecté la gendarmerie respecté suñu emblème yi respecté la police respecté euh, la justice donc yooyu yëpp bokk na si li nga xam ne gars yi bëgg nañ ko tëggaat si assemblée nationale bi mooy la coalition Aar Sénégal te jàpp naa ne Sénégal yi war nañ si ñu mën a leen ndax ñi ko composé ak li mu nag mooy li nga xam ne moo gën si Sénégal dem ci Sénégal euh, Tani Malik, Malick euh, ba tey mbokk ñu ngeen fàttali dinañ seen émission bi nga xam ne mooy e ñu ngi dara ki nga xam ne mooy Camara bokk ci li nga coalition art nekk tamit membre de la massification fii si diwaanu aussi euh, Malick fan ñu dégg loo xam passé wax nañ nga askan wi da kat dengan anda a ak nga xam ne président Macky Sall tey tamit ñu déggaat leader dan gis ci ñenn ñi si bokk ci yéen sax commencé wax jooju la. waaw wax moom wax dëgg yàlla muy muy muy ma jàpp ne muy la coalition Yewwi Askan Wi la bokk ki ci jiitu mooy seen seen tête de liste bi nga xam ne entre guillemets dañ ko mënatu ko doon député ku xam ñu composé la coalition Aar Sénégal xam démission donc bul waa coalition aar Sénégal ay liggéeyal loolu ce sont des propos comme ni ma ko doon waxee mensonge réel et ñu ngi kaas ñu ngi kaas ñu ngi def mais dañ ko def si si de façon républicaine ñu ngi kaas li ñu wax ñu ngi ko war a wax c'est parce que la différence que ñun ak ñi si des mooy ñun coalition jàmm la ñu wax parce que dëgg dëkk ku ko bëgg a defar ëllëg doo ko yàq tey su fekkee ne yow askan bi si ay manipulation ay taal ay toj nañuy xaar coalition Aar Sénégal pour ñu identifier wu si opposition man je pense que ne ñom ñu ngi nax seen bopp su fekkee ne man japp na ne réew mi benn opposition bo xam ni ça va à l'encontre des intérêts ou bien de l'instabilité du pays moy moy ki nga xam moy moy coalition yoyu Askan parce que si xuloo la ñuy woote si manipulation la ñuy woote créer des entreprises de destruction massive xam si ay nit tek ko si ay naxaate ay sos di tuumalaate alors que politique du loolu programme la ay idée la ñun loolu lañ xam ba nga xam ne bi élection yi desee un mois jël nañ li nga xam ne mooy suñu contrat de législature jéppal ko askan wi moom lañ doon baatee campagne ba démb xam naa nag aar Sénégal dafa commencé tiital gars yi waaw te ñoom comme que wujju lañ ñu jàppee te ku sa wujju di sëlëm doo set motax tay ñu ne nan attaqué rek peut être que lool dina xawa dam seeni seen mais ñun ñu serons debout taxaw pour xéxal Sénégal ak coow li nag xeex beeg attaque bi fu mu mën di jugee nous serons toujours debout pour pour le Sénégal. vidéo bi pour le Sénégal ñu ñoo wax tamit ci li nga xam ne mooy élection yi ci diwaan xombal bi buñ ko léegi à côté ñu ànd rek ay naataango ñoo xam ne nii yaakaar mais yéen ngeen choisir ki nga xam ne mooy moo tax ngeen ànd rek benn nga xam ne demoon na élection locale la fois passée muy Gora Gueye tey ngeen bokkaat même coalition yan qualité ngeen mën a wax si moom ak tamit lan moo leen boole. waaw Gora li ñu boole coalition moo ñu boole wax dëgg yàlla coalition moo ma ma gis nit koo xam ne nii nit ku dal la nit koo xam ne nii la aussi tamit nit ku ku engagé la nit ku ku bëgg ku bëgg li nga xam ne xombol la yàlla di def nit ku dëgg la amit tamit yàlla di def coalition boole bi par élégance républicaine man ma élégance républicaine ma ma bàyyi ko mu jiite coalition ci ci seen coordinateur bi parce que yàqu si dara sama grand la de il est candidat am na loo xam ne nii représenté ko si dëkk bi je ne vois gisuma dara loo xam ne nii mën na mën na mën ñaaw na si man donc mu jiite coalition bi loolu mën na si def porte à porte ak li nga xam ne mooy seen pré campagne bi lan yan jàngat bi la am ci diwaanu Fombo surtout actualité bi waaw jàngat bi ñu si am mooy mooy comme ni may waxee rek man d'habitude du ma focaliser yu samay adversaire man loolu laa jëm si politique samay force laa la laay laay te force boobu mooy li nga xam ne mooy suñu contrat de législature ñu koy faram-fàcceel Fombalwa yi nga xam ne ñu ngi leen di seeti te amul benn yoon boo xam ne ni nit déglu nañ ñu faram-fàcceel la lu nekk si contrat bi te joxewuñu loxo dangay dégg nag yu de di saboté de mais je je vois que nous ils surpris parce que Sénégal yi dogatuñu sénégalais yi dogatuñu daal je pense que ni fin demagul épouser li nga xam ne mooy contrat de législature ak suñu idée politique def seen idée politique nga dëkk ci kër goo xam ne bu góor ak bu la coalition de Bokk Yaakaar ah lan ngay nekk est-ce que du am ay parce que ou li nga xam moy débat bi débat bi day xam lay toll ci biir non lool man man lool mom mënuma si du ma si am naa lu ma ci wax sax moy moy lool du débat quoi xam nga lu tax du débat euh man je pense que ni si réewum démocratie lañ nekk waaw may nuyu samay parents au passage ñoom xam nañ ma ñoo ma yar li li ñu nelaw si man lu bari ñom ci ñom la ko la ko jëlee

biir yeew yeewi askan boobu nga gis sax Barthélémy idée de Yewwi son père est conseiller de de la présidence de la république donc man je pense que ne loolu du ay débat li débat bi kay mooy démocratie bi nga xam ne nit ñi dañ ko war a nangu si réew bañ di def une dictature de la pensée unique waaw te ñëpp fii lañ war a jaar ñëpp fii lañ war a gis lu waaye wax baax na lu waay lool du loolu bokkul si li nga xam ne mooy mooy doxal réew loolu bokk ci mooy doxal réew te donc looloo tax ma ne la kër gi moom wax dëgg yàlla jàmm moo fi am tooñante waxtaan débat ci politique kër bu ñu toogee ci loolu la ñuy wax man sama papa sama donc je pense que ne lool loolu moom amul benn xel seen si li nga xam ne moom nga gis réseaux sociaux yi saagante yi baat yu ñaaw yi

man je pense que ne loolu du njariñu Sénégal parce que Sénégal kat réewu jàmm lañ ko xamoon xam nga réew boo xam ne nii nit ñu yeewu lan parce que ay alternance yu bari am na nit ñoo xam ne nii lépp lu ñuy wax dañ koy teg ci xel mu sell mais suñ demee ba nga xam ni ay coalition dañuy jël ay nit di jël alal ju bari ju takk di leen dëkkal jox leen ay connection internet su nit defee publication

mooy ñi nga xam ne dañuy gobee loolu noonu parce que groupe whatsapp famille dañuy jël benn affaire rek vidéo bun tronqué dagg si tuuti dugal ko yow da ngay def ne loolu mooy dëgg alors que loolu loolu loolu noonu du dool li nga xam ne mooy mooy reflété discours Malik Camara bu jeex tak wala benn parti bo xamne ni mom mom la wax ci gis gis ci gis gësam ci réew donc loolu war nañ ko bayyi ñi koy def xamni réew mi ñun ñoko bok su yaqo ñun la yàqul su baaxee ñun la baaxul ñun la yàqul bu baaxee mun a baaxal defe naa ñu ngi dem ci cappaandawu émission bi eh, mun noo dem tamit te waxtaan ci li nga xam ne Malick mooy ngeen jëm ci élection législative yi ak ban appel ngay lan ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ak ñi nga xam ne tamit ñoo doon volontaire yi ak xale yi nga xam ne tamit tey jii la jeunesse pour am na lu ñu représenté ci li nga xam ne mooy élection yi ban message nga leen jëm waaw man li may wax rek mooy jeunesse bi ñu ñu dal bañ di doon seeraakano benn nit wala benn politicien parce que lépp si la jàmm moom si si lépp si jàmm la xaj dañu bëgg ay élection yoo xam ne le premier la août su jeexee le premier ku nekk dem joxi say loxo di dem liggéey waaw parce que Sénégal yi peuple bu mature la ñu dal bañ ji xuloo bañ ji xeex xam ne kat wax dëgg yàlla surtout Khombole doonul dëkk boo xam ne nii dafa yaatu boo xoolee ñun ñoo bokk les mêmes fréquentation ñoo bokk université yi ñoo bokk même terrain yi ñuy football donc kon lépp lu ci waay di def rek war na ko def si responsabilité war na ko def si dal war na ko def ci jàmm. kàddu gu mujj gi lan lay nekk. waaw kàddu gu mujj gi rek di di di leen sant di leen gërëm di net. si liggéey bi nga xam ne yeneen koy def di permettre ndaw yu mel ni man mënuñoo jotee yenn affaire yenn média yi ñuy wax li nga xam ne moom lañ mooy seen gis-gis di leen remercier di leen encourager baax a baax di leen wax ne fii rek incha allah def mbokk yi Je bi le premier YouTube sur Instagram bi ak mi ne Facebook bi depuis naa ne wax naa ko sànq ndoon tey secrétaire général de la coalition Arts Sénégal ak nekk membre fondateur aussi parti bi nga xam ne mooy parti Aware bokk tamit ki nga xam ne mooy membre de la délégation de massification du parti moom la doon waxtaan ak tey li ngeen ko wax mooy message boobu muy lancé muy message de paix boo xam ne ñun ñëpp war nañu ko bokk surtout jeunesse bi nga xam ne mooy nekk diwaanu Xombol mbokk yi dina jox ci gërëm dina leen jox jàmm li nga xam ne mooy seen seen.